Eu Yolu digo que eu gönül gibi var Toujours dans votre scandale du jour de ce jeudi 14 décembre 2023 sur la chaîne des grands événements nous bëgg cette année image yi vidéo yi nga xamante ni mi ngi salle de sport bi nga xamante ni mi ngi foofu ca Parcelles Assainies mu doon ay jeunes yoo xamante dañu regrouper wu créer entreprise teg ay salle de sport muy euh, Parcelles di Almadies di fépp ci Ndakaaru ginnaaw hommage bi nga xamante ni rendre nañ c'est une vibrante battante muy ken kudul nday souleila ñu xam ko ci guerre de positionnement am xam ko patriotisme xam ci lépp loo xamante ni mi ngi koy pour que la vérité puisse régner dans notre pays par rapport ak yenn manipulation et scandale yi kii di ndey Sow Leila a été honoré hier par ñi nga xamante ni mooy jeunes yi nga xamante ni am salle de sport ba doppi daal di indi consigne de vote jëmale ko ci kii nga xamante ni mooy Sow Leila foofu la bokk foofu la jëm muy candidature bu Benno Bokk Yaakaar bi Amadou Ba nañ seetaani vidéo et image yi dellu mà mà mà đi đi không mana gila ko ngi không ăn la mana sawle la comme amu ba la mana ni na ko mo ma ko mo ne ko ci japp ko ko la japp man sama tak mo la kay sandi mo ko won nak li nga xamni moy dara ko ci dafa ko ci yow won ko ko won ni ci không mo ko không comme ñu không ko ko ci ko mais da won ni ay ko ñun ñaan do ko man mo sawle không mo ko ñëw na également nous devons se voir pour chaque femme et d'abord. Moins technique. Ada berapa dekat? Ada berapa dekat? kon yaakaar naa ni ñoo sasandoo vidéo boobu mu amee ca benn salle de sport bu nekk foofa par parcelle des jeunes qui ont prétendu honorer ki nga xamante ni mooy la lionne la battante le patriote sénégalais celle qui défend toujours la vérité et éclairer la lumière partout à travers le landerneau politique Ndeye Sow Leila moom la ñu honoré foofa ca parcelle par des jeunes qui ont choisi de prendre un consigne de vote boo xamante ni ñu la làqu ci ginnaaw ki nga xamante ni mooy Ndeye Sow am nañ ci sañ-sañ ndagam taalibe yi ñoo jël seen sañ-sañ dénk ko ki nga xamante ni mooy Aïda Diallo jox ko ay carte d'identité pour que dans lépp lu mu wax moom la wax jeunes yi aussi dañuy gis ni que ñom fepp fu Ndeye Sow xool foofu la ñu xool ndaxte ay jikko ak ay caractère yo tax ñu lambok mom ba dal di joxe consigne de vote kon donc ku ci nekk ku bëgg and ak mom na nga and ak mom ku bëggul and ak mom aussi on respecte li nga xamanteni moy ce choix lolu moy démocratie lolu moy liberté d'expression nekkuñu ci ben pensée unique nekkuñu ci ben dictature intellectuelle donc je crois que Ndeye Sow Leïla mérite bien ses hommages parce que ku nekk gis na taxawaayu Ndeye Sow Leïla fi ci Sénégal ci combat ci xeexam jëm ci bépp lo xamanteni dafa jëm ci insécurité instabilité ak li nga xamanteni dafa jëm ci manipulation ak ay mensonges yo xamanteni ni ñenn ci ay cadre politique avons éclairer la lanterne sur la lumière sur tous les plans donc je crois que tay suñ ko par des jeunes c'est quelque chose de xamante c'est à saluer et c'est méritant toujours